asalaamaaleykum mbokk yi teel a àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmmu di juróomeelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ci weeru novembre ci atum ñaari ak ñaar fukk ak ñeent fukki juróom-ñaar bokkul ci li muy fàtte lim bu rafet la kon tey ca àllarba ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca daloo li ñu ciy teetere wàccante ko moom àllarba mooy ku ca sangu wala ku ca fóot wala ku ca tàggoo wala ku ca watu ñaanu bis bi yow yàlla mi aji dund ji te aji des ji maa ngi sàkku xettal ci sa yërmande yaa xayu yaa qayuumu bi raxmatika astaxiisu bi raxmatika astaxiisu xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ku sunu boroom namm ci moom aw yiw dina ko déggloo diine xadiis bi dëppoo nañu ci qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin muttafaqun alayhi waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi 5 heures 52 juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili ak ñaar tisba 13 heures benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñeent takkusaan 16 heures 19 ñeenti waxtu yu tegal ak juróom-ñeent timis